sëñ baa ngi leen di jul nuyo nuyoo bu rëy bu tedd di sant bu baax di gërëm di ko jaarale ci Serigne Malick comme ni nga ko waxee léegi di leen xamal ne euh, kër Cheikh moom yaakaar du fi tase kon nañ dolli suñu yaakaar bu baax baax jàpp ne li indi lii mooy indi mu sotti ci jàmm ak salaam bañ ñëwaat ci kanamam ñu ngi ñaan suñu borom yàggal ko fi te may ko wér yàggal ñu ci ginnaaw di am mbégte lool bu baax ci dalal leen it ndax moom Cheikh Modou Fadal rek la fi nekkal di leen jox nuyoo kilifaam Cheikh Aboul Baraka ak Cheikh Modou Bachir mi jëwriñu kër gi ak Cheikh mu Mountakha mi nga xamante ne bii moo yilif yoonu murid bi yëpp di leen dalal ci ci kër gu boppam gi ci Ndindi di leen dalal ci kër gu boppam ga ca Touba ndax fa ngeen jógee nii léegi ñëw moo am ci mbégte lool ak yaatu lool ak yaatal lépp loo xamante ne bii wax nañ ko ci rek ànd na ci ak ñun barki démb bi may ñëwee wisit na ma ànd na ak yéen wisit kër ga ba noppi doo ko koy ñëw leeral ko mu ne mën naa ne <laughs> xam gu ma xam <laughs> yitte ji am ci moom loolu rek moo tax sëñ Fallu suñ baa ngi nuyu bu baax jotal am nuyoo suñ mbokki naar yi neen nekku mi ngi leen sëñ baa ngi leen di nuyu sax engagé nañ bëgguñu dellu ko ci yéen jox jox ko leen jox leen ko ñoom waaye ñun ñu ñu jàpp ci yéen rek kon yéene ji am ci yéen na ngeen ñu fexeel bañ am ci lu kawe njort dinañ yaakaari liggéey bi ba nit ñu baree bari ñëw xarital ko ne dañ ci am si lépp loo xamante ne bi wax nañ ko ci biir loo xamante ne bi cité bi war na ko am nañ ñu dimbale ba buñ ñëwee buñ ko xoolee fekk fa loolu loolu daal moo doon yitte ji nga xamante ne bi jógle nañ ko Sëñ Abdou Fatah jaarale ko ci yow pour ma yëgal leen ñoom ñi ñoom it yàlla dogal na ñoom Tuubaa lañ dëkk sax far euh, liggéey ko suñu fal nag buñ ko tegee jaarale ko ci ci sëriñ fal yaakaar naa euh, war nañ cee mën a am yaa jotul rafet waaw kay ñu ngi noonu loolu moom xéwal la ñu ngi noonu Mbàkke waaw alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah hmm. suñ fàll waaw nee Çok mutlu olduk. Çünkü Türkler yaptığın her iş başarılı olacaklar. Yaptığın kişileri mutlu oldular. O Allah size verdiği bir özellik. Ee, şimdi Şeyh Abdül Fatah'tan e, geldiğiniz Şeyh'tan benim cheikhim benim de abiyim saada je ben olsa o kadar e, e, niyetim olurdu ama eksik olabilir sadece ben olsaydı eksik olabilir ama o içinde olduğu için benim çok e, temennim var. İş istediğimiz şekilde olacağına şüphemiz yok. Çünkü o Şeyh Şeyh Abdul Fatah bu Muridiye tarihinde çok büyük hizmetler ediyor. Öyle güzel büyük işler yapıyor ki tarihette ve bütün Senegal'de herkese onu taniyor onu niyetine ve ihtikadine biliyorlar. Cheikh Mahamadul Fadil babası onu hizmet ediyor. Ondan çok güzel işler bekliyordu. Onu da çok seviyordu. Hala o sevgi ve o istek devam ediyor Cheikh Abdul Fatah'tan. Or you then say Abdul Fatah, ichinde oldun her ish. Almasi gereken şekilde olacağına hiç şüphemiz yok. O yüzden size dua ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Tekrarlıyorum, siz, siz, siz, bu iş size verdiğiniz ci çok mutluyuz. Senegal içinde verdiğiniz yardımda biliyoruz. ve Türkiye sürekli gelen Senegallilerden yardım ettiğiniz için de mutluyuz. Siz oradan buraya geldiğiniz için e, tekrar oraya döneceksiniz. ve eğer orada e, yani Senegal'den Türkiye'ye gelen e, Senegalliler da mutlu değillerse bir defa geldikler geldikten sonra bir daha gelemezler. Amma surräkli gidib geldi ki geldiler için e, eh, kim öyle bir şey yapabiliyorsa gidip ticaret yap. Gittiğin yerden mutlusun. O yüzden gidip geliyorlar. Bu iş size emanet ediyorum diyor. Bir de sizden çok ricam var yani çok beklentim var. Allah size yardımcı olsun. Ve herkese yardımcı olsun. Serigne Khadim mii bi ñu boolee ak moom ba léegi ñu ko Assane guddi ak bëccëg suba ak ngoon projet bi fuñ ko ci woowee mu bàyyi la muy def taxawu ko boole kook laa biir boo xam ne ak ubbeeku boo xam ne ak yéwén boo xam ne lu mu am daf ko ciy def mm-hmm. bu ñëwee daf ñuy teral ba di njurus ndax rek di ñu xelal di ñu xalaatal ñun ñun dañuy am sa kersa wax dëgg yàlla kon daal ñu ngi leen di ñaan ngeen gën ñu ko ñaanalal yàlla suñu borom ba moom source de motivation la ci ñun ndax kilifa la mais tànkam lu wuñu ci dara ci projet bi ñu seedeel leen ko ah beneen bi tamit dañ leen di seedeel di ci jël suñu borom suñu diggante ak ci ne pour wax ne projet bi sëriñ bi ngërëm nañ ci ba na gën a bëgg ko dërëm ndax gëm nañ ne projet bi mën nañu ubbi suñu wàllu àdduna ak alaxira ba tax na duñ ko fowee duñ ko caaxaane duñ ci ànd ak santiment kilifa yi nga xam ne ñoo jóge turki jaar ci ñaari sëriñ fàllu yi ñëw fii teew amul benn protocole bu ñu xaatim ak ñoom ba fi ñu toog nii di wax ak yow tànk de waxuñu ñun ñu ñëw ba Touba waxtaan kilifa yi gis leen ba ñu xam ne seen xaal kilifa yi nangu nañ ko pour que ñu mën a waxtaan bu waxtaan bu xóot ak ñoom loolu tam lu jaral leeral la sëriñ bi parce que am na loo xam ne ñun ci xel mën nañ ko jàpp mais am na loo xam ne ci xaal yéen yéen a koy jàpp bu boobaa ñu am ci ndigal ñu mën a jëflante ak ñoom parce que projet bi du projet takam takam du projet boobu dañ koy gàddu di ko jaay projet am dañ ciy jaamu yàlla ku ko mën ci condition yi nga xam ne sëñ xaadim waxtaan nañ cee moom ba mu xam ne lii mooy seen bëgg-bëgg ku ko mënee noonu defee ko noonu ku ko mënul noonu yeneen entrepreneur ak yeneen kilifa ñi ngi taxaw pour yor ko loolu ñu wax leen ko xamee ngeen xamee ñu ñu ñu seedeel leen ko xamal ne ñu dañ ciy jaamu yàlla dañ ci def suñu tarbiya di sant bu baax nag ñaari fàllu yi wax dëgg yàlla pas-pas biñ ci am yëg-yëg biñ ci am boobu ba léegi am nañ ay projet yu ëpp doole yi mais projet bi def leen gën a dugg ndax yëg-yëg ndax pas-pas di gërëm ñi nga xam ne nag liggéey bi tàmbali nañ ko te gusuguñ turc gusuguñ benn partenaire mm-hmm. ñu nekkoon ci nag mm-hmm. ñu leen di sant di leen gërëm ñaari entreprise nekk nañ fi terrassement yi ñu doon def mm-hmm. liggéeyu maquette bi soxna Ndeye Ndiaye mi ngi nële di taalibe ci kër gi jiite entreprise bi lu mu mën Euh, monsieur Dia ak monsieur Diagne mhm. jiite entreprise bu mag tamit doon ñu jàppale ci étude technique yi mhm. ba ba léegi ñi ngi ci ñi ngi nee toog mhm. wax dëgg yàlla bàyyi wuñu kon ña nga tàmbali woon nag boobu nga leen di fay ngeen nekk ba tey ji ñeneen gis ko di ko xemmeem donc ñooñu am nuñ seen fay amuñ seen gërëm donc ñoom ñu ngi teew fii ci jotaay ak ñeneen ak ñeneen di sant di gërëm parce que bi ñuy ñëw Touba ñu xam sëñ Fallou fi mu àgg ci taalibi murit bokko mbokk yi nga xam ne waa marché bi commerçant yi yëg ko ñoom ñëpp mobiliser wu jàpp ci jàppaan ñoom ñi ngi fi teew le secrétaire général Diagne mi ngi fi teew ak le président commerçant yi ñi ngi fi teew yu marché Ocass ñu seedal la ko tamit yooyu yëpp di ñu jàppale bëgg tamit projet bi am ndam am réussite nee mu ngi lay jottali nuyoo euh, entreprise bi ak famille bi Şimdiye kadar birçok yerli ve yabancı yurt dışında projeler tamamladık. nee na bu yàgg ba léegi ñu ngi liggéey ay pays yu bari bokkul di yor ay liggéey yu mag ci biir àdduna bi. Ama en çok manevi baskı hissettiğimiz proje bu olacak. waaye nee na yëg-yëg yi ñu am ci projet bii nii musuñ ko am ci benn projet. Allah utandırmasın. nee na ñu ngi yaakaar ne yàlla dana yeggali seen yéene ci liggéey bii nii. bize buraya gelmemize vesile olan Serif ve ailesine teşekkür ediyorum. nee na ñëw gi ñëw fii ñun ñi ko sabab ñun ñi mu ngi ñuy sant bu baax yi barab bu mel nii peut-être teknik bizim işimiz. nee na liggéey bii nii seen liggéey la boo xam ne moom rek la ñu xam. ancak bu sadece iş gücüyle veya teknikle olmuyor. nee na waaye yëg na am na yëg-yëg ne liggéey bii nii du du du xam bi rek. wala man a liggéey bi rek moo koy moo koy doxal nee am na yëg-yëg yooyu moom. bu yüzden de herkesin duasını istiyoruz. moo tax xam ne ñaan moo koy continuer moo tax ñu ngi xaar ci yéen ay. incha allah muvaffak etsin. nee na ñu ngi ñaan yàlla danañu defal am tawféex ci liggéey bi ndax ñu ngi nekk ci biir. teşekkürler. ñu ngi lay sant bu baax nee na di la gërëm